baax la man naa ba matuma ko seede matuma ko seede parce que ndëkk nit bu demee ba am lu jóge ci moom luy taaw bu tuddee la ko moo ko seede bon ndëkk sama rakk ju wér la mais man ngeen gëm ne ku baax la lii ñu fi indi tey nag fii ci meewaan lii la président de la république bëgg son excellence le président Macky Sall ki doon présenté léegi wax na ko président dafa indi lu ñuy wax plan Sénégal émergent mu nekk nag loo xamante ne ñépp dégg nañ ko ci réew mi ku nekk fii rek ci tànt bi mas nga dégg ñu ne plan Sénégal émergent mais bu ma leen laajoon bi fi Macky Sall nekkagul lan moo amoon kenn du yëkki sa loxo ne ma plan nangam dafa mel ni plan mu ngi door a am parce que sénégalais yi ñu ngi door a xam lan mooy plan plan nag duma leen ko nettali mooy lan parce que képp koo xamante ne tabax nga kër rek woo nga architecte ne ko defal ma plan bon nag boo laa tabax. dafa am foo koy rëdd xool naka nga bëgg mu mel avant nga koy commencé loolu mooy plan Sénégal émergent naka la Macky Sall la bëgg suñu président bi xamante ne dafa bëgg réew mi naka la bëgg Sénégal mel ko fii ak deux mille trente cinq loolu mooy plan Sénégal émergent waa bi plan amagu lu amoon bi plan amagul tëñax tëñaxi rek ba yàgg fa nga jëm loolu mu amoon. te loolu nag yorul am réew bon nag plan Sénégal émergent dafa bëgg fii ak 2035 koom bi marché cest diir économie bi dox Sénégal di créer richesse mu am koom bu wér te fi mu nekk nii ñu ngi si yoon parce que koom li koy natt mooy alal ji ñuy liggéey Afrique yépp Afrique yéex Côte d'Ivoire Kenya ak Sénégal ñoo fi ëpp lu ñu créer richesse bon dëkk président mu ngi def loo xamante ne lu mucc ayib la si fànn bu njëkk bi mooy créer koom bu wér ñaareelu tànku plan Sénégal émergent mooy fexe ba nit ñi parce que booy créer koom dëkk te nit ñi yëguñu ko dana doy waar mooy fexe ba nit ñi nit ki yëg boppam si koom googu moo tax mu defar bourse de solidarité familiale nit ñi di ko jot mu mel ni salaire si ñoom pour mu leen di jàppale seen kër moo tax mu defar couverture maladie universelle nit ñi bu ñu demee di faju césarienne gratuite képp ku ñu war a def césarienne doo fay dara moo tax mu taxaw ba wàññi impôts yi si ñu xamante ne dañuy am salaire pour que seen pouvoir d'achat gën a mën a yokk moo tax bon nag maa ngi woon si li mu jëmee si nit ki parce que dama ne plan Sénégal émergent comme bi la mais comme bu dul bàyyi nit ki ci gannaaw nit ki nag wax naa bourse si wax naa couverture maladie universelle wax naa impo yi ñuy wàññi wax naa loyer wàññi wax naa logement yi xamante ne ñu ngi koy fexe ba ñëpp am si mais wax naa tam li ñuy jàppale jigéen ñi ak mag ñi ci àll bi pour que seen liggéey gën a mën a jaar yoon bon dëkk président boobu waxul rek ne xaalis yomb na nañu bàyyi nit ñi effectivement ñu sonn moo tax sama agent bi doon wax sànq ana mu dem na yaakaar naa ne li mu daanee la waxam bu gisoon li ñuy liggéeyee ak ni ñuy liggéey man naam du daaneel noonu parce que courant bi muy wax xam ngeen ne ñun xuy kamaj lañ fi fekkoon mais bu ñu ñëwee ba léegi xuy kamaj amir bi ak leneen ak leneen mais du ma si du ma si du ma si yàgg ñetteelu tànk plan Sénégal émergent dëkk mooy njub daf ne nañu créer koom muy tànk mu njëkk bi mu ne nañu fexe ba koom boobu nit ki yëg si boppam mooy tànku ñaareel bi mais xam ngeen ne tabouret bu am ñaari tànk du taxaw mu ne am na beneen tànk nag buy taxawal mbir yi fexe mu yàgg sax mooy dëkk bu jub yoon am fi nit ñi jaaral yoon bon dëkk ñett yooyu mooy ñetti tànku PSE moo tax PSE dëgër parce que si ñetti tànk yooyu la taxaw PSE nag am lu ko gunge loo xamante ne moo koy gunge ba mu yegg si gox yi ak gox goxaan yi loolu la ñuy wax plan loolu la ñuy wax acte trois de la décentralisation bu ngeen koy dégg acte trois de la décentralisation ne leen mooy lii gunge PSE bi pour que mu yegg ci gox yi ak gox-goxaan yi loolu nag lan moo ko màndargal mooy président dane kenn waratul dégg ci réew mi ñu naan réewu tax yi ak wu àll yi kenn waratul dégg loolu ñépp ay commune la ñu doon ñu ne réewu taax yi ñoo tudd commune ñu ne ñi nekk si àll bi ñoo tudd communauté rurale président de DER ñëpp ay commune lañ ñëpp lañ war a jox dignité bi xamante ne ñoom ñoo ko bokk. bon donc loolu mooy acte trois la décentralisation mu ne région bi dafa sori fa mu nekk dafa sori population yi nañu créer département mu gën a jege nit ñi boo ñëw fii da nga naan man département Tivaouane laa dëkk xam nga dëkk dëkk département Tivaouane. si biir commune Mbéwane moo gën a yomb nga ne man région de Thiès laa bokk moo tax département moo gën a sax si xol moo tax ñu ne département la ñuy créer pour que mu gën a mën a jege ñun ñi gën leen mën a jàppale loolu nag mooy ñaareelu mandarga acte 3 ñu ne nag nañ leen gën a jox ay jumtukaay jox gën leen gën a jox xaalis ba communes yu effectivement jàpp at mu jot bu ñu defee acte 3 ba léegi 2013 ba léegi at mu jot rek ñu yokk xaalis bi ñuy jox communes yi ren yi may wax ak yéen commune bu nekk ci Sénégal rek gis nga sa fonds de dotation ak sa fonds d'équipement des collectivités ñu yokk ko su am solo commune bu nekk rek bon dëgg loolu le président namm pour gën a dooleel commune yi mais ñu ne doyul moo tax ñu ubbi benn waxtaan bu mag boo xamante ne danañ ko def ci booru premier ministre fan yi ñëw mooy conseil interministériel boo xam dañuy xayma acte trois bi bu ñu ko xayma ba pare ñu xool maintenant naka la ñuy yokk jéego yi la ñuy wax deuxième phase deuxième phase boobu nag li xamante ne moom moom lañ si nar mooy yokk koom ak xaalisu commune yi mais aussi defar lu ñuy wax pôle territoire mooy fexe ba département yi bokk ak commune yi bokk ñu jéem leen gën a boole pour que ñu gën a taxaw bon nag loolu nag chantier bu mag la chantier boobu nag ku bëggul sam réew doo Niger ba 2035 te wóor na la 2035 du la fa fekk xam nga loolu bëgg sam réew moo tax yow xam nga ne 2035 du la fa fekk mais li ngay Niger yaa ngi koy tàllal ba 2035 pour mu baax bon xam nga ne réew mi moo la tax a jóg bon nag kooku maa ngi leen di wax ngeen jàppale ko bu baax parce que président la boo xamante ne day xalaat génération future yi bon nag ngeen bon nag si loolu lay terminé di leen wax ne posé nañ première pierre wu stade bi marché ndëkku bi commencé nañ ko centre socioculturel bi ñu ngi si danañ ko song pour wax leen ne li ñuy def fii ci Mewane moom la ñu yéenee fépp ci Sénégal parce que président de la République dafa gëm ne développement économique li ko lal di ko dëgëral mooy gox yi ak nit ñi ci gox yi fa ñu nekk ñoom ñu sentir développement parce que bu fekkente ne territoire yi dañu développé incha allah dëkk bi yëpp ay naat maa ngi leen di remercier bu baax. Chers compatriotes. La commune de Mewan, créée à la faveur de l'acte trois de la décentralisation, a toujours été un laboratoire des politiques publiques de déconcentration comme de décentralisation. Il faut noter déjà qu'en 1972, Mewan faisait partie des communautés rurales pilotes de la réforme d'alors est l'une des premières de la région de Thiès. Riche de ses potentialités minières et agricoles, sa superficie, plus de kilomètres km et sa taille démographique de 52 000 habitants environ, Mewan offre un bel exemple pour l'organisation d'un forum économique, social et environnemental. L'objectif, nous l'avons indiqué dans les termes de référence que nous avons envoyés aux différentes structures, étant de les contributions de tous les acteurs au développement local notamment, l'administration, les populations via les organisations communautaires de base et les partenaires techniques et financiers en vue de l'élaboration d'un outil capable de prendre en charge l'émergence socio-économique de la commune. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la démarche adoptée, consistant à partir d'une série d'expositions valant tableau général de la commune dans tous les domaines, force comme faiblesses, mais aussi et surtout stratégie d'impulsion d'un schéma de développement intégré. Il faut noter à cet effet la sollicitation de tous les acteurs pour des engagements techniques et financiers. Monsieur le ministre, distingués invités, le thème du forum Rôle des industries minières dans l'édification de terroirs viables recoupe parfaitement la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers l'acte 3 de la décentralisation qui a comme finalité l'érection de terroirs viables, compétitifs et porteurs de développement durable. En effet, l'idée de créer des terroirs de vocation à partir des potentialités spécifiques à chaque pôle économique nous semble pertinente et cadre clairement avec une vision futuriste et réaliste. Aujourd'hui, plus que jamais, les communes attendent des sociétés minières une forte implication dans la prise en charge du développement local. Monsieur le ministre, je voudrais magnifier très sincèrement les efforts innombrables mobilisés pour la réussite de ce forum. Il me plaît de saluer, de vous saluer et de vous remercier sincèrement pour tout le soutien que vous nous avez apporté. Et dans ce registre, saluer l'accompagnement technique et financier de vos structures dans la réalisation des marchés de Ndekou, du stade municipal de Mewan, dont vous allez poser la première pierre tout de suite, et du futur centre socioculturel de la commune. Mes remerciements s'adressent particulièrement à vos directeurs et chefs de service qui n'ont ménagé aucun effort pour un succès éclatant de ce forum. Je voudrais également saluer l'engagement et le soutien des partenaires locaux. Les industries chimiques du Sénégal, ICS, son directeur général, M. Alassane Diallo, est avec nous. GCO, Grande Côte Opération SA, son représentant, M. Daourdien, est là. Sénergie PVSA, son représentant, M. Mbaïsar, est dans la salle. Pour vous dire que ces acteurs ont contribué grandement à l'organisation de cette manifestation. Ils nous ont soutenus techniquement, ils nous ont soutenus financièrement. Et je crois que à travers l'organisation que vous avez pu constater, vous savez pertinemment que des ressources colossales ont été mobilisées pour le succès de ce forum. Je voudrais enfin remercier et féliciter tous les agents de l'État ici à Mewan, au premier rang desquels Monsieur le sous-préfet Richard Biram fay Je crois que taxawaayam ci forum bi yéen ñëpp gis ngeen ko ca ba ñu koy xalaat di ci door di ko taxawal ba bi ñu agsee fii saa yuñ ci nekk rek dañ ciy déggante di ci waxtaan mu mobiliser service am yëpp daanaka defatul woon lenn fan yi lu dul consacré li nga xam ni moom moo di temps am énergie am dooleem ak léppam ci forum bi donc monsieur le sous-préfet ci teewaayu kilifa yi monsieur le ministre ak monsieur le préfet et de tous les directeurs nationaux yu fi nekk ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm yow ak sa adjoint ak sa CADL bi yëpp parce que yaakaar naa ni seen liggéey ci forum bi am na solo kon mbokk yi pour tënk dama bëggoon ñu gàtt